bi woote jàmmal rek la dama koy faral di waxe ndax jàmm moo ñu ñor jàmmi Wakaam moo ñu ñor jàmmi senegal moo ñu ñor ndax tey dañuy yeewu am mbir mu xew fii ci Wakaam daldi di lënt suñu xel ñu wax ne ne euh, le maire Samba li jàlloo mi nga xam ne mooy le premier magistrate de la commune dafa woote wax ne maanaam day réconcilier Wakam ñu dégg ne wax na ne woo na ndomb tànk yëpp woo na notable yëpp ma bëggoon fàttali ne ak ku xam Wakam ci fi mu toll nii Wakam dafa am scission maanaam dafa xajale ko cest à ku ko bëgg loolu mooy li nga xam ne moo fi am moo fi nekk ku ko ku ko bañit loolu moo fi nekk ñii dañu jaar ni ñii jaar ñi mu am ñu ne ñaari conseil des notables moo fi am waaw man ma yaakaar ne nit bu fekkete ne dafa am benn crise bu am nii nga wax ne yow dangay jubale waaw ñi nga xam ne ne euh, ñoo nekk en conflit entre guillemets mais parti bu ne da nga ko war a gis séparément am na benn démarche boo war a yor su fekkee dang ne da ngay mettre commission sur place pour mu dox loolu commission bi day xooli parti bi waxtaan ak moom seeti parti bi waxtaan ak moom soo paree ci loolu yëpp nga dajale leen ut. ay ay ay ay ñoo xam ne ay ñu mat kilifa lañ lu mel ni imaam yi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir Wakaam nga ne nañu defaroo ci biir mbokk kuy defar noonu ngay def waaye tey fi tey li xew dégg nañ ne tey woote nañ woote bi ñu woo wax naa leen ne conseil des notables yi ñaar la ñu woo benn conseil des notables bi beneen bi euh, benn nit xaw ma ñaari nit lañ fa jël convoqué leen man miy wax ak yéen je suis en tout cas l'un des jaraaf de Wakam parce que sama papa jaraaf la woon sama maam jaraaf la woon man ma toll ci falu ma falu nekk jaraaf àndax conseil des notable ñuy liggéey Wakam ma damay wax sax ma continuer di liggéey Wakam ndax bi ma nee xale bu tuuti laa dugg ci liggéeyal Wakam kon ma jàpp ne su fekkee dañu wax ne dañu woo jaraaf yi dama bëggoon xam ndax ñooñu ñu woo ndax am na kenn ku ma gën a yeey fii ci wakam su fekkee am na rek na ma wax maa ngi déglu donc jàpp naa ne su fekkente ne dafay woote man ma nekk grand jaraaf man maa war a jëkk si ñu muy woo waaye yëguma tinuma conseil des notables bi nga xam ne ñoom laa ànd di liggéey yëguñu tinuñu kii nga xam ne mooy saltige yëgul tinul kon boog damay attire wat attention autorité étatique yi euh, ñun dañu wax ne bañuñu réconciliation waaye réconciliation boo xam ne dafay tegu ci dil loolu lañ wax ne duñ ci dugg réconciliation dafay leer mais mënoo def réconciliation ba pare bëgg def lu lëndëm loolu dañu wax ne ànduñu ci conseil des notables bii ma àndal dafa wax ne noonu du ñu def loolu bu ñu def réconciliation dañuy toog ñu indi huissier ñu indi ñi nga xam ne seen loxo set na ci wakam lu mel ni imaam yi ñu ngi fi xam nañ seen bopp ñu woo leen ñu consigner loolu si këyit ñu juboo suñu préalable loolu la mais waxuñu rek nga ne da ngay jubale woo benn parti daal di filtrer ut ni oo kii oo kii kii bàyyi am looy préparé parce que temps yi yëpp ni ngeen ko xamee. aéroport bi moo nekk à l'ordre di jour xam nga fii kenn mënu fi neex kan ñu ñëpp ay Sénégal lañ ñu ñëpp ay sénégalais lañ kenn mënu fi nax kenn kenn mën gënul muus kenn parce que mënoo toog rek aéroport bi taxaw nii rek nga ne waa nañ leen juboo daal di maquiller sa benn mbooloo rek ne wala juboo nañu état état kenn da ko mën a nax état kenn mënu ko nax xanaa bu dul dara sax renseignement généraux yi ñu ngi fi ñu ngi fi nañu xool assistance bi ña fa toogoon ñu xool ndax deux parties yi ñoo fa ne benn parti moo fa ne kon boog benn parti boobu lu mu engagé lu mu engage du ñu engagé ñun ñun wakaam moo ñu ñor lu mu signé ne lii lay doxal ci wakaam dégg naa ñu ne benn forcing forcing mënu fi am parce que ñun si coutume la ñu ne te Sénégal nag kenn warul wax waxu forcing di yëngal Sénégal lu ñuy def dañ ko war a def de manière consensuelle moo gën nga ne dangay def forcing forcing bu fi naree am fii ay doomu wakaam moo fi am te xale taxaw tem ñu ngi fi loolu duñ ko seetaan loolu musiba lay indi si wakaam buñ fi wax waxu forcing nañu wax waxu jàmm nañu wax rassembler ñëpp ñun ci loolu la ñu ànd mais boo waxee forcing yaa ngi wax waxu yee na te loolu taxuñu jóg en tout cas loolu man maa ngi ciy interpeller son excellence euh, Macky Sall bés mu ne dama koy wax parce que après tout mooy kilifa dëkk bi mooy kilifa dëkk bi te ñun suñu cër du yee fitna ñun suñu cër ñun ay régulateur lañ porteur de voix lañ suñu wër mooy euh, suñ suñu rôle mooy loo xam ne dafay dafay taal dëkk bi ñu jëm ko fay wala boog ñu taxaw ba loolu bañ a tàkk fitna bañ a am si dëkk bi. ah tey si suba nag dafa am réunion bu nga xamante ne bii le maire Samba Bathily Diallo maire de Ouakam moom moo ko ootee ne dafa bëgg jubale jubaale waa ah li nga xam li si yéeme mooy moom dafa xool ñi ko intéressé ñi nga xam ne ñoo ko arrangé ñi nga xam ne ñoo ko mën a jàppale moom si li muy bëgg mu daal di leen oo ñu ànd dem gisante seen biir parce que ñooñu ñooy ay xaritam na leer bon boo ko xoolee moom si ba léegi mu ngi taxaw si tànki xajjale booloo gi nga xamante ne gii moom la waa Wakaam war a mën a def mu xajjale leen féewale leen mu am ñu mu oo am ñeneen ñu mu bàyyi wax dañu am yaakaar si ne su fekkee ne da nga taxaw ne da ngay réconcilier ay nit da nga leen di jubaale si dëkk bu mel ni dëkku cosaan comme Wakaam mu am ay kuréel ñii nekk fii ñii ne fële bon sooy oo da nga war a dugg si kuréel yëpp fu su nekk nga daal di fay oo jël fa ay nit ñëw te ñooñu bu ñu ñëwee si si ba bu leen jéem a dàqa naan bokkuñu si beex ak ah, boo leen fi bàyyee bu ñu duggee dañuy yàq ndaxte loolu jot naa am. d'abord li gën a yéeme si jamono bi ñu toll si corona bii rassemblement dañ ko interdire waa bon lan moo ko tax a jóg lan moo ko itteel dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba tax mu xëy na mu ngay ootee si njëlbeen dañ na monument la ñu oote ñu ëlbatiku daal di replier wu si biir euh, euh, mairie bi wax na ndag seeni wax xam nga dëkk bi fii wakaam dañuy wax ne képp kuy wax na nga jàpp ne li ngay wax da nga yëbbante parce que lu waaye wax rek dina génn si biti lañ fa jot a wax moo de naan dafa am ay xale yoo xam ne dañ nekk si dëkk bi di def ay problème di indi ay perturbation di indi ay jaxase loolu amul dafa am ñoo xamante ne ñii ñooy xale yi waa taxaw tem ñoom dañu taxaw si leeral alali dëkk bi sàmm ko aar ko fexe mu ñoŋ coow li coow li ndek lenn moo si ne mooy moom su siy wax tey jii moo ñamu àndal ndax bàyyi xel si na ñi mu àndal tooxi duune ji ñuy wax si suufa dëkk bi ñoo ñoo ko indi bon bu fekkente ne bi ñun dañu am ay problème yu nekk biir tribunal ñu nekk si lijjanti problème boobu si wàllu yoon nañu xaar kenn neewul dañu am problème déedéet fii kee ngi fii kee ngi fële mais terewul dëcc dañuy daje dañuy waxtaan kenn yëkkatiwul jaasi kenn yëkkatiwul aw yet jëm si moromam. ay mbokkal lañu amu si kenn ku si yéene sa morom dee parce que ku si dee yaay taxaw dëj ko mhm. mais lenn moo am li alal ju ñu bokk du ñu bàyyi kenn nag nit jóg dem defi ji ko. ñaar nag xam nañ ko ñu ngi yëkkati ay wax parce que wax ji yëpp mooy suufi ay aéroport bi man lépp loo xamante ne lii le maire de Wakam ci Bathily Diallo xam naa ko bu baax il ma connaît très très bien nous avons fait les bancs ensemble ñoo jàngandoo xamante nañ bu baax ànd nañ ay at waaye man ndaje mu muy dajale fii lu jëm si wax lijjanti naan damay jubaale te boobu ma xam ne li ko itteel lépp mooy suuf si man sama xel da si tey parce que mënu ma kaa óolu bu fekkente ne bi suuf suufi aéroport bi moo tax ñuy wax ay yàkkamtee jubboo nañu xool suuf soosu bu ñëwee kan lay jariñ parce que li fi jot a jaar si suuf gisuñu fu mu jariñee waa dëkk bi xanaa moom Samba lu jàll ak ay nitam xëy na ñoom la jariñ waaye waa dëkk bi seen boppa yëguñu ko gisuñu ko parce que alali dëkk bi moo ñu moo ñu yàqal lu bari bon dañu wax ne le sectarisme bi nga xamante ne bii maanaam boddi gi mu indi am ñu mu jël féetewoo leen àndax ñoom mënuñ saa àndax moom tey mënuñ saa àndax moom ëllëg ku taxaw def sa réunion def sa déclaration naan Wakaam juboo na da dangay nax waa réew mi loolu mënul nekk nañu wax dëgg gi ab dëkk boo leen di jubaale ndaw ñi mag ñi xale yi góor ñi muy ak jigéen a ñëpp sa lañ bokk da ngay waxtaan ak ku si ne ñu daan naan da daje waaye doo ñëw oote. xool ñi la arrangé nga oo leen ñeneen ñi ñëw nga ne duñ dugg ci réunion bi moo waral nag ñuy wax ne ñii nga xamante ne ñii ñooy kilifa aada yi yor réew mi président Macky Sall nekk sa kaw na yebal ay service de renseignement am la ko commencé présidence ba si suuf ba ci sous préfecture yi nañu gëstu bu baax mbir mi nan la tëdde nan la nekke moomeelu wakaam leer na duñ si waxtaan duñ si duñ duñ si maslaa dafay jub xoj day jub xoj ñu daal na ay ca parce que buñ naan juboo booba am na ñu uute ñu réeroo ñuy réeroo li waral ñu réeroo nañ xam lan la li li tax ñu réeroo lañ sa def lañ xam lan lan lan moo sa nekk ana kan moo ko def ñu xam ne kii moo def lii ah lii ah lii bu ñu xamee lépp bu ñuy waxtaan xool na ñuy eh, arrangé ba defaroo ñu daal di ko soog a def waaye jamono bii ñu toll dañ ne wakaam tal na leneen lu dul wax yi nga xamante ne moom la ñuy indil nii di wax ak juboo ko koy dox da ngay boole ñëpp waaye doo indi ak féewale loolu moo doon kaddu yi nga xamante ne yi jaraaf Mamadou Gueye ak ñoom saltige président lay Ndoye ak suñu mag yi ñu àndal ak conseil de muy conseil des notables am conseil des frais am conseil des jeunes muy waatu kalek taxaw tem ak jigéen ji ñoom dañu wax ne suñu tànk fii lañ ko teg bi saa bu ñu gisee lu gën a leer li ñu nekkee ñu dem sa la waaye maire bi ni mu doxalee nii ni mu déparé ànduñu si tey ànduñu si ëllëg kooku moom na leer nañ waaw état bi état bi na arbitré état bi na arbitré bii gën a suufee mooy sous préfecture sous préfecture moom dans la zone de l' la là sous-préfet bu mooy responsable administratif numéro un mu soog a àgg si préfecture dem gouvernance dem ministère de l' intérieur uti ji sa kaw bon ñoom ñëpp ku wax intérieur administration territoriale xam nga ne renseignement mu nga fa ñoo ko yor la surveillance du territoire ñoom ñoo ko yor bon dama ne nañu ubbi seen i bët ubbi seen noppa saytu bu baax lii xew fii ay naxa sa gindang ay sëlamaate duñ ko nangu duñ ko nangu jubboo itteel nañu ñu ñam ñu rafetoo nekk benn waaye ci kaw njub ah loo xamante ne lii mooy njëriñal wakaam ëllëg